Ya wa batay ak Allo Dakar ñi ngi ci magal gi tey nak ñi ñew fi nak soxna momi kebe batay dajé fek ko xamné day kenn ci ñun muy suñu baye ñepp xam ko ci geew yonte yalla Muhammad di kilifa nag gu mag. waxna ni ne kuy tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam amel nga ko ñukkal te yang koy ñaanal suñu borom yagal ko fi muy alhaji mustafa Mbaye père ñi ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay eh, sama doom Dorobe ñu ngi lay fay ci bés bu mag bi nga xam ne ñu ñu fekk kër mu Adja moom ñu ki nga xam ne kenn la woon ci man yaayam yàlla na yàlla yokk leeram daan ma bëggee ngir tagg gi may tagg yonent bi kon fii mu fi ñuy war naa fee ñëw moo sama teewaay fii. gannaaw bi nga fi tee mu ci bisu màggal gi. ñu gis ni soxna Momy kebe nit la koo xam ne foo ko waxee ñu ni Momy Serigne Saliou nit ku baax la nit ku mën a def teraanga mën nga ñëw wax yan yan yan yan jikko nga xam ne xam nga ko ci soxna Momy maanaam jikkoy soxna Xadija la yore di soxna su tedd war naa man mal melu ndax ku sa bàyyi ala njuga Kébé maanaam ku sa wajuru jigéen ah sa juru jigéen ñëpp xam ko kon moom Adja Mariam Dieng Sall war naa mën a mel nii. ndax moom yaayam mu ngi ci dëgg mànk ci fen sama soppeloon ngir yonent bi teral teral defal na ma ko ngir yonent bi mu suñu borom teel ko jël nag ma aj mu dem àjjana wujj Sëriñ Tuubaa moo bàyyam bu tedd bi waaye loolu doom ji yàqu ci dara. lan nga ñu mën a yëkkatil Serigne Saliou salli dawaab maay Serigne Bambaay waaja wasir salaab ma Cheikh Saliou Mbacké waskuru xilaab ma wa binnaay yaasal iraadaay Serigne Bamba baax yaasal ifaada xalitu sa adaali ini tidaay borom gotok mbuur sidini xididaa zinatidaa bila annayi muhammadu rasulullahi safitifayi bila jawaay tayib asayi tayib xadaay yaasal wujudi sëriñ bamba nee na kulli bi juudi wàccal wujudi faw xaladaay xabli widaada Cheikh Saliou Mbacké xudli muraada yaa man afaada bi laa kiiraayi ablil burooraayi borom gotog mbuur kenil